ñoo koy gertu ci fenêtre janvier bi ndax ñoom li bëgg mooy recruter ko pour mu daal di ñëw hein, combler également lii di blessure bu kii di Rodri justement Manchester City nga xam ne gars yi gagné nañ seen procès boo xam ne nag 120 vingt ah chefs d' accusation cent vingt d' accusation lañ tegoon seen kaw mais li tax daal ñu daal di koy réussir ndax affaire wàllum kii lañ leen waxee hein, ah wàllum koppar gi ñu koy gérer ak yooyu ah scandale financier ñoom daal dañoo mujjee trouver nga xam mooy dans le genre parrainage ak seen structure yi pour mën a couvrir yenn yi loolu nag tax na Premier League daal di convoquer réunion d' urgence boo xam daal ñoom nee nañ daal li nga xam mooy doon ko règle de parrainage boobu nga xam ne moo permettre ñi di Manchester City jaar ci nga xam mooy donc digg sërëx boo xam dañ ko ubbi woon danañ fexe ba régler ko loolu nag ne nañ mën naa jur coow du côté du de euh, de l' de France boog ben coow bi nga xamné ne gars ñu koy bëgg yëkëti moy wa RMC ñoko wax nak nee dal daal joueur yi ci mel ne ñoom Mbappé ak yooyu daal fi ni dañu nii dañoo di ne ak kii di Deschamps d'accord ñu ak système de jeu bi muy football jamono ji lool nak fi mu ne nii nee indi ab benn distance mais jàpp nañ ne joueurs yi aussi gis nañu dal système bi kii di rek Deschamps di teg nekk na système dafa prévisible ah donc il mongoo ko <laughs> dafa prévisible lañuy lañ dal lañu ñu daal euh, xamle euh, pendant ce temps euh, les lions du Sénégal commencé ñëw nak nank nank ah ngeen gis ci photo bi Mory Diaw également Cheikh Lo le gardien du Jaraf de Dakar convoqué euh, parmi les gardiens moom nag moo nekk troisième gardien bi lo gna bi nga xamné ne nag Edouard blessé na Alfred Gomis aussi indisponible ah ñii waa Sénégal dañu ko daal di indi mais aussi nga gis ci photo bi Abdou Aziz Ndiaye l'arrière latéral du Jaraaf de Dakar momit it yegg si fii nii ah ngeen gisoo ñoom Seydou Sanoka aussi euh, ki nga xamné ne donc Pathé 6 euh, arrivé au niveau de la tanière et également Iliman éliminé éliminé Doudou Pader Skilimane Starboy Ndiaye ngeen bëggul boom yàpp lay dundee il est présent donc gaynde yi nga xam nag tey entre

li nga xam ne ministère bi daal di décider ñoom nag nee nañ ah, voilà donc nekk na loo xam ne aussi état bi ñoom au service de l' état lañ nekk donc lu état wax ñoom moom lañu àndal nee na nag ah fi ne nii am na état d' esprit bu baax bu fi nekk parce que am na lu fi si seete ko léegi nag ñoom ñooy continuer jëm ci match ñaari double confrontation contre Malawi nga xam ne nag seen objectif mooy daal di koy gagné donc bu ko Koulibaly qui était informé que ne donc ministère des sports daal ñoom dañoo fas yéene tekki doomal tànk Aliou Cissé bi moom Augustin ko wax et que voilà nee na xaw na leen a bettu tuuti ah donc loolu wax yéen a gars yi ban gis-gis ngeen ci am li mu nekkoon information ngeen bëggoon jox Hein. Toujours un plaisir de vous servir. Wait de like, wait des abonnés. On avance ensemble dans la magie de Babo Show Sportifs. Bah, le bonus du bagaille. Ja, gen, jeff.